yoo xamante ne vraiment duñu raté benn yoon suñuy live tey moom comme on est un peu en retard dañ koy commencé maam biram dafa ma ne tey moom ñun suñu bopp dañuy def suñu introspection wala tey ñooy def actualité mooy la presse monte au front le Sénégal et le risque d'isolement en Afrique de l'Ouest waaw xam nga depuis un certain temps nag presse du Sénégal daanaka mooy lëmbee dëkk bi euh, boo fàttali ko live bi passé ba ko jiitu euh, nu ma ko tuddee woon sax la stratégie de Benno Bokk Ba jaaxle donc nga gisoon ne instant boobu daanaka waa Bennoo mi nga xamante ni ñoom ñoo ne ñooy opposants yi kenn gisu leen kenn déggu leen daanaka eh, galgal bi ñu ne dañ koy def pouvoir bi presse bi la ñu ko yóbbante nga gis eh, eh, daanaka quotidien yi la plupart di wone carrément que dañu opposé wu contre le pouvoir xaaruñu sax mu def résultat maanaam opposition systématique la ñu gis ne daanaka moo doon am <laughs> live bi également passé euh, ñu ngi ci doon wax euh, mm, les pièges de la rupture mhm. parce que ñooñu nga xamante ne ni ñu ngi opposé wu ba pare ne du ñu feeñ ñi nga xamante ni ñoom la ñu yaakaar pour ñu defal leen opposition boobu mooy presse bi presse boobu continuer ba am acte yoo acte des des des des actes yoo xamante ni posé nañ ko ñu analyser ko fii la dernière fois. bi ñuy mm-hmm. wax ci les pièges de la rupture ak euh, l'affaire du euh, général Kandé. Mm-hmm. <laughs> li ci xew yëpp gis nañu ko man am na sax ko ma interpellé di naan ma yow ak ni nga yàggee xeex pour la liberté de la presse naka nga mën a toogee di préconiser à ce que ñu ar benn journal wala sax ñu très benn journal paraître. ah mais dañ fay def kenn deful aussi. Euh, xam nga xam nga xadisi euh, euh, la maa ngi koy fàttali penco bi passé bi fi Jean-Luc Mélenchon ñëwee ànd ak Ousmane Sonko fële ca. Euh, université ñu def foofu seen conférence boobu le lendemain am na ab journal bu euh, euh, publié à la une que li xewoon université Gay Pride la. Gay Pride te déjà sax ñu ngi ci le mois des fiertés ah. ma ngoog maanaam ndajeb Gay Pride pour ñi nga xamante ne nii dégguñu anglais wala comprendre lu ñu mu mooy ndaje moo ñoo xamante ne nii ay góor jigéen lañ wala dañuy promouvoir. homosexualité. waaw ah, ci mois de juin lañ koy def d'ici quelques jours léegi nag yow fa nga xamante ne nii euh, euh, xam nga déjà loolu nekkul sax joxe la bonne information. puisque la xew foofu kenn mënul toog en tout cas ci ñi ko seetaan déglu lañ fa doon wax. kenn mënul toog ne dañ doon def la promotion de l'homosexualité. boo nekkee de mauvaise foi nag. <laughs> waaw boo nekkee de mauvaise foi nag euh, lu ne mën nga koo wax xam nga li ma bëgg wax foofu rek mooy journal bi nga xamante ne nii publié na à la une que la xewoon université euh, am ndaje la ab feetu góor jigéen la xam nga loolu lu ne mënoon na ko ci fekk. Mm-hmm. mënoon nañu koo convoqué ne ko lii nga bind ni non seulement c' de la euh, euh, comment dire c' est de la diffusion de fausses nouvelles parce que Gueye Pratt amuloon université. Mm-hmm. mais également mënoon nañ ko ci dollil calomnie ak leneen ak leneen. Mm-hmm. Euh, euh, euh, loo xamante ne ni day ternir wala day day day day day jeter le discrédit ça mhm. voilà day jeter le discrédit très bien sur sur sur sur sur quelqu'un donc loolu amu ci nga xamante ne ni quelque part pouvoir bi accepté woon nañ période boobu sax ab journal dem bay wax ne Ousmane Sonko ak Jean-Luc Mélenchon lañ doon def foofu affaire góor jigéen la pouvoir waxuñu ci dara te quelque part nga mënoon koo comprendre même si jàpp naa ne liberté d'expression yeggul ci que ngay joxe information bu mel noonu mais ñoom ci seen xaw ma grandeur laa koy tuddee xaw ma naka laa koy tuddee mais bàyyi nañ ko mu jàll. Mhm. li nga xamante ni nag moo waruloon a jàll quand mooy li concerne le général Kandé nga xamante ne nii non seulement li ñu publier ce n'est pas vrai. Mhm. li ñu publier du dëgg la président de la République moo moo am la prérogative de nommer aux emplois. Euh, civile et militaire bu jëlee ab décret daal di nommer général à tel poste pour man euh, lu ko yoon may la def te amul kenn koo xamante ni war nga jóg di contester cette décision là donc lu ñu wax du dëgg ba pare ñu wax ko ci cadre bu sensible xam nga léeg-léeg sax mun nga wax ne buñ nee ñii ci gay pride lañ nekkoon maanaam ci feetu góor jigéen lañ nekkoon quel que soit alpha quel que soit euh, wax ji ñu mu ñaawee mënul impacter sur la sécurité de l' état. comprendre mais bi non seulement lu ñuy wax du dëgg mais dafay laal un secteur boo xamante ne nii mais c' est super super super sensible. muy la sécurité nationale. <laughs> ma bu ñu demee nag ba naan euh, comment dire général bi kontaanul un général boo xamante ne nii responsabilité mi dafa rëy wax naa ko fi la dernière fois mënuloo gérer euh, mënuloo yor. armée de terre yëpp nekk le chef d'état-major général ba pare euh, yor les forces spéciales ñu bëgg laa jàppe comme un simple militaire. Mhm. donc kooku dayoo bi nga xamante ne ni position yooyu mu occupé jox na ko ko war na tax ba képp koo xamante ni yaa ngi wax surtout ci loo xamante ni da nga ne moom na nanguwu ko dàkkoo ko ba nga dolli ci sax ne nee na day dem saisir cour suprême pour. contester ce décret du président. Mhm. xam nga loolu wax dëgg yàlla jàppoon naa ne bu ko pouvoir bi bàyyi woon ce serait un président très dangereux. te waxuma sax ce qui va se passer après. Mhm. mais ci même dossier boobu rek lu bëree bëree bëree bëri mënoon na ci xew. Euh, euh, wax naa ko fi euh, la dernière fois que le général Kandé Macky homme de confiance su Macky Sall la moo ko jëlee Ziguinchor mu nekkoon foofu comme zone. mu indi ko à Dakar jox ko chef d'état-major de l'armée de terre. Mhm. tegal ko ci coordonnateur des force spéciales. donc kooku homme de confiance am la ba mu koy def am na ñu mënoon a contester cette décision là wax ne. ci Macky Sall di doogu nommé kat am na ñu ko gën a ancien lan moo tax ñu jox ko tous ces pouvoir la mais pourtant critique amul dañu ne Macky Sall moo ko war a def def na ko léegi nag bu keneen ñëwee jàpp ne. kii kat kële moo ko wóolu woon man dama war a teg ñoo xamante nii wóolu naa leen am naa ci ñoom confiance. Mm-hmm. parce que loolu moo jiitu lépp am confiance ci ki ngay confie ay responsabilité mu ne ñoom ñu ne jàpp nañ ne keneen lañu ñu gën a wóolu ci place boobu mais loolu warul nekk débat bu ñu demee nag ba naan ce général là ce rebelle ma ne ça devient autre chose et que le pouvoir amul droit euh, sëgg. croiser les bras ou la gëmm ne du jéem a xool loolu du ko lijjanti. te gis nañu ne eh, ba ñu euh, euh, euh, ba ñu ci waxee. Mm-hmm. daanaka sujet bi commencé na tuuti tuuti di génn ci débat public bi. bien sûr tout fait. mais tey nag <laughs> presse bi tamit mu ba léegi mooy continuer di alimenter l' actualité d'une autre manière muy mbirum fayum impôt bi. tey sax am na ñoo xamante ne certains patrons de presse yoo xamante ne ñoom gisee nañu toog waxtaan. gis ban euh, euh, plan d'action la ñu war a mettre en place alors est-ce que loolu war na toog euh, ba ñu dem di presse di xëccoog état pour mbirum fayum impôt nga xam ne loolu dafa nekk acte citoyen ñëpp ko war a def. xam nga ko war a fay parce que booy fay sa salaire ñun dañu koy xam nga lii ma fi expliqué nii yëpp ci wàllu presse bi la. presse laa fi wax ne moom moo fi publier que li xewoon université Gay Pride la. ab laa fi wax ne moom moo comment ne le général entre en rébellion loolu yëpp presse bi la euh, te bu nekkee ne euh, Sénégal euh, am na benn secteur boo xamante ne nii dañu ne ñooñu du ñu fay impôt man yëguma ko man it da yëguma ko waaw entreprise de presse xëy na entreprise de presse lañu wax mais jàpp naa ne daanaka amul benn distinction ak beneen entreprise boo xamante ne nii objectif am mooy faire des bénéfice parce que en définitive képp koo xamante ni teg nga entreprise de presse nekkul ne yow temps volonté loolu ay temps aussi di Lamine ñoo ko daan def nga xamante ne ni ñoom dañ daan créer dañ daan créer organe de presse xalaat jëm ci orga euh, groupe de presse parce que jàpp nañu ne information yi ni muy doxee Sénégal warul continuer di doxee noonu par des principes ak gis-gis ñu jàpp ne war nañoo teg. un organe de presse mais tey jii nii seetlul daanaka ñii créer ay ay ay organe de presse yëpp c'est des hommes d'affaires c'est des hommes d'affaires ñoom ñooy crée de groupes de presse ñenn ñi xëy na peut-être mun nga wax ne ay journalistes lañu yu génn créer seen groupe de presse mais li ñu si jublu nekkul def du service public li ñu si jublu mooy gagner de l'argent. te lu ci extraordinaire mooy journalistes yooyu sax après ils se dañuy reconvertir nekk homme d'affaires. <laughs> très bien léegi nag. Euh, euh, bu nekkee ne d'accord nañu ci que entreprise yëpp war a fay impôt ku ci d'accordul <laughs> nañu ko wax ci commentaire bu nekkee ñu ñu suivre am na ku ci d'accordul que am na entreprise bu warul fay <laughs> comment dire <laughs> impôt te waxoon naa fi bu yàggul que photo bi euh, l'autre la génne léegi baron mm-hmm. que Macky mi woo la presse bi nga xamante ne nii les la. bu ñu ko def ci veille élection yi. avant les élections très bien ñu woo certains patrons de presse certains laay wax. Mhm. pour ne leen effacé na def na une amnistie fiscale maanaam effacé na lépp loo xamante ni waroon nañ ko fay ci impo ma ne leen c'est comme décret bu mu jëloon wax ne ñi nga xamante ni nekkoon nañ ay ministres yëpp dañ leen di jox euh, indemnité retraite mhm. xam nga loolu wax defoon na ko fi. Mhm. le président Diomaye bu mu accès daf ko daf ko dindi. ma ne l' moo te moo nekkoon Macky Sall créer une certaine animosité entre ñu muy defal favori favori yooyu ak ñi ko nar dindi. ah ok kon yow pour yow ci logique boobu noonu la nekk ba léegi. c'est la c'est la c'est la même logique moom bu mu woowee la presse la may leen lu mu moomul may leen lu mu moomul xam na ne ki koy wuutu amul aucune obligation mu kon ne bàyyi loolu muy jàll. amuñu benn obligation d'autant que yow mi nga xamante ni yaay ñëw fekk fi une situation catastrophique soxla de rentre d'argent yow tu es euh, euh, comment boo nekkee ne da ngay wut ay niches yoo xamante ni mën nga fa gagner de l'argent mais sa commence d'abord par ñi war a fay impôt te fayuñu. bien léegi moom Macky Sall mi ko defoon leeroon na ko ne euh, comment dire pouvoir bi fiy ñëwaat da koy dindi mais bu ko dindee. day créer une certaine animosité entre le pouvoir ak organe de presse yi nga xamante ni ñoo waroon a bénéficier wu de ça bu ñenn ñi déjà maa ngi dégg ay commentaires comprendre nañu déjà que Macky Sall loolu mu leen ne da leen koy defal ab piège la boo xamante ni il n'est même pas allé jusqu'au bout. ndax day signé wul sa décret bi. demul jusqu'au bout. Mm-hmm. donc lan la si jublu woon mooy patron de presse yooyu gëm ne Macky Sall mii kat dafa pare pour jàppale leen keneen bu ñëwee dindi loolu. ñu ne Macky lu mu ñu defaloon kat pouvoir bi moo ko dindi. Hmm. Eh, eh, loolu nag c'est une raison suffisante pour que yenn presse yi dal di braqué wu. mais dans tous les cas pour man loolu expliqué wul euh, li nga xamante ne ni moo commencé feeñ dindiroog une certaine animosité entre le pouvoir et une certaine presse soo bëggee comprendre réellement cette relation la Euh, jàpp naa ne il faut nga comprendre d'abord euh, euh, Macky Sall ak journalistes yi naka la ñu nekkee woon xam nga doon naa fi expliquer